asalaamaaleykum les patriotes proche baal ma àq proche baal ma àq mais nag il faut nga comprendre ci benn côté man Arafat Mbessire Sonko mii di sa maam mooy sama maam damaa dëgër bopp waaw maa ngi jéggalu nag Bart <laughs> naanaan bi naka jekk nag naanaan nga waaye di nga fi fekk ay gune miraago yu la gën a pare nag yu la gën a réew gën laa pare yow Bart yow. yow ay abonné ngay jooy ay abonné yow yaatal jooy ay abonné yow bi nga commencé politique ba tey lan la ban mbooloo la la politique may yow bu mu mayu Ousmane Sonko wax ma ko Barthélemy tey ngay toog di bew parce que dangaa toog ci 16 roulant day bew parce que dangaa jot ci mairie dakaar waaye bu yóbboo nga santee ko Ousmane Sonko ma lay xamal nag de passage bi mooy sama dernière vidéo bu may tontu bu ma lay tontu yow waaw fii lay njëkkee te fii lay mujj Barthélémy Dias ñun buñ doonee ay saagakat yow loo doon dama ne yow lan nga doon nga ne saagakat yëpp dañoo désabonné wu sa page ñun de kenn jéem ñu rey nit du dëgg Bart. arrêté Bart arrêté parce que gis nga soo arrêté wulee lépp loo fi wax rek ay xale yu miiraagu guney miiraagu ñooy jël tontu la am nga nag ay xale yu pare waaye tamit Sonko am na ay xale yu pare yu jongoma rafet teg ci moomooñu Barthélémy Dias bu la neexee xolal demal fanaan biir palais bu la neexee xolal kottante la président Macky Sall lëkkaloo leen euh, tëju leen waxtaan leen sinap leen selfie leen yéen a xam li la gis ñun boo ñu bàyyee benn xoolal ñun bàyyi nañ la fukk élection dina ñëwaat élection dina amaat yow toute façon ñun xamoon nañ ne yow yàgg nga di mëbët pour Sonko bañ a bokk waaye nag fii nga ñuy fekk Seydina Ousmane maa ngi jégaluwaat de passage waaye nag mag bu réewee dañ koy nettali lu baayam warkat warkat rek lay doon yaa wax waxu réewande ñu tontu la tontu réewande nee nga lu ñu indi nga delloo ñu ko nee nga yow lu ñu indi nga delloo ñu ko yow loo indi ñu delloo la ko te boo arrêté la ñun duñ arrêté ñun ay militant lañ de duñ ay sympathisant ay militant positif lañ loo bax lu ne dinañ ko wàccaw loo bax ñu ñeer ko bandiwoo sax dangay bandi bandilu ñoo la gën a judd ci taawoon bi gënoo ñoo judd ci taawoon booy plateau ngay waxal ñoo la gën a bandi fop regleel moomoo ñu Pape Diaw. parce que fële